bismillahi irrahmani irrahim wabillahi tawfiq wa alayhi tawakkaltu ilay unib allahuma salli wa sallim wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa man wala ixwaani fillah jamaat al islah benn nas assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh benn waay bu yëg ci motoom démb dañ ko daal di jam oto li nga xam ne moom moo ko jam nag ab avion drone la maanaam avion bu amul pilote foofee ci béréb bu ñu Shabaa kon dafa mel ne israéliens ñoo ko war a jam foofee ci Liban waaye démb mu am leen lu xew loo xam ne lu yéeme yéem la benn gaal boo xam ne gaalug militaire la bu Israël démb ma nga doon jéem a ka nappat ak a waajal ak faggandiku fàggandiku avion drone yi nga xamante ni maanaam avion yi nga xam ne waa Hezbollah ñu ngi leen di yebal foofee ci nga xam ne mooy dëkk bi ñu fay Syria xay Syria na boo ko bi nga xam ne fa la benn yamin Netanyahu nekk muy quartier de résidence am démb bàyyi leen xel ne waa Hezbollah yebal nañ fa avion avion boobu nag teewul nag ñi nga xam ne mooy waa Israël tiit nañ ci waa Hezbollah ba dañoo mujj dem ut benn gaal goo xam ne gaalug militaire la pour avion bu jóg ñu mën koo daaneel waaye teewul Israël yoom moom moo ne am na avion de guerre boo xam ne waa Hezbollah ñoo ko yebal ci béréb bi nga xamante ni dëgg-dëgg fala Benyamin Netanyahu nekk beneen bi waa Israël yow mu nee démb daal am na lu lënt ci xel ne avion bi waa Israël yebal bi waa Hezbollah yebal daal nekk na jot naa filmer ak photographier béréb bi nga xamante ni dëgg-dëgg Benyamin Netanyahu fa lay toog fa lay nekk kon nag loolu nag kiital na Benyamin ñaawu lool ndax mosul xalaat am na benn matériel bu ko war a mën a filmer bàyyi leen waa Hezbollah ñoom dañu nekk dañu armé wu dëgg dëgg ba man mi sax damaa commencé jommi ci seeni armée man mosuma woon xam ne foofu ñu ci xay Syria mën nañ fa yabal seen avion mu daal di photographier ki nga xam ne moom mooy Benyamin Netanyahu moo tax nag dëgg dëgg Israël yi ñoom nekk nañu journal bu indépendant xaw nañu hmm. maandu ba wax nañ ne daal ndax waa Israël ñoom ña ngay weddi loolu ñu ngi naan ñoom dañoo yebal ay bateau de guerre yoo xam ne taxaw nañu daal di fàggandiku loolee ba agsiwul waaye nag dëgg-dëgg ki xam mooy Israël yi li ñu wax moom mooy lënt-lënt am na ci loolu ndax mel ne Hezbollah daal yebal na benn avion drone boo xamante ni daal ñëw na daal di filmer béréb yi nga xamante ni daal fala benn Benyamin ñaaw di nekk foofe ci Qaysariya beneen bi mooy journal bi di Al Mayadeen ma ngay wax na démb ñeent ñu ñàkk seen bakken am na ci ab jigéen ak euh, ñetti xale ñoo xamante ni ndeysaan eh, ci mbedd moom ñuy tuddee Charul Isrim ci Nansrat ci digg Gaza niki noonu benn këru yéenekaay bu nekk Israël ma ngay jële ci ay kilifa yuy wax ne wuute gi nekk ci mbirum Philadelphia muy dëkk bi nga xam ne Israël ak waa Hamas ñu ngi koy xëccoo ci négociation yi waa Hamas ne da ngeen fay génn ba set wicc waa Israël ne da ngeen di nekk ci wàll yu nekk ci wàll am na ñaari kilifa yu ne loolu balaa yàgg dañ ko lijjante ba mu leer niki noonu démb gis nañu juróom benn ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ñu andi leen ci hôpital bi Shuhada al Aqsa muy hôpital des martyrs dal Aqsa foofee nag li leen fa yób li leen yóbbu nag ci blessé yooyu moom mooy Israël song bi mu song bir bi ñuy wax Sharif al Mazari ci dëkk bi ñuy wax Der Balax ci digg Gaza waaye teewul. ba léegi waa Saraya Quds wéy di def benn communiqué boo xamante ni wax nañ ne démb ñoom songo nañu ak waa Israël songo yu taratar bi waa Israël di jéem a dugg ci béréb bi ñuy tuddee mu xayyam balaata ci foofu sax nag ñoom nee nañ ñoom jot nañu soqi ay ay sox yu métti métti jëmale ko ci soldats israéliens yi doon dox te rek yooyu ñu ngi leen xaw xaw nañ leen rek yu dis gan la ci seen kaw ba ñoom wér na leen ñoom meen nañu leen te ñoom nee nañ nag waa Saraya Quds danañu wéy di xeex ci saa su nekk teg ko ci maarakatu tuufaanul aksa muy guerre délice dal aksa Sawa Saraya Course ñoom ñoo def loolee communiqué boobu ci seen contesa bi nga xam ne moo nekk Nablus euh, muy seen ki yor seen wàllu information de guerre niki tey lañ ko def dimanche le 18 août 2024 euh, beneen bi mooy seet nañu démb ay song yu bari yoo xam ne yahudi yi def nañ ko foofee ci Gaza giñ noonu moom la ñuy génn ci fajar gi waaye amaat na beneen róofaloo ak jàmmaloo gu métti ci diggante jullit ñi ak yahudi yi foofee nga xam ne doon nañ jéem dugg ci mu xayam balaata ci penku ñuy wax dëkk bi ñuy wax boo demee foofu nga ne mooy Nasira Nasira démb am na xew bu fa am muy benn grenade boo xam ne bu fort la sànni nañ ko ci benn boutique commerciale ci mbedd mi ñuy tuddee mbedd Saare ak Diyaanaat waaye jotu fa def benn loor démb daal wax nañu ne yeneen i xew-xew amaat na yoo xamante tamit yu yéeme yéeme la mooy waa a nga xam ne mooy mujaahidoon yi fexe nañ benn baaraas boo xamante ni ah, Israël moo ko tegoon pour gàllankoor leen foofee ci penku tol kanam ñu daal di fay dóor ay oh, ay ay ay ay matériel yu am am doole ba daal di jàll dem seen yoon këru yéene kaay yi nga xam ñoo nekk Israël nee na démb génnee nañu ci lu jiitu daal ñi dëkke woon ci ñi nga xam ñoo sës rek ci isbula te dëkk ci colonie bi ñuy tuddee Iliyat xasaaxir mu ne génnee nañ leen foofu ngir ne dëgg-dëgg mënuñoon fay safara si nga xam ne bi xisbula sànnee seen misili ñoom ñoo fa di fa tàkk ba léegi ni ko na amaat na beneen xew boo xam ne démb mu ngi am foofu ci Xadasut zaman muy fukki soldat ak benn yu Israël ak seen benn officier yoo xam jam nañ leen jam yu wuute nag ci ay mettit beneen bi beneen këru yéene kaay bi ma wax ne démb rey nañ ak jam nañu fukki soldats israéliens ci bi ñuy démb bi démb ci fajar gi bi ñuy jàkkaarloog waa Hamas foofee ci euh, euh, Gaza AFB AFB mu ngi jëlee ci benn benn direction bu jóge ci mouvement Hamas ña ngay wax ne euh, waxtaanu Biden bi nga xam ne ne dafay jokkale pour mën a taxawal safara si foofee ci Gaza ne loolu ay waxi caaxaan la yoo xam ne daf koy wax ngir tardeel yëfi rek waaye li am ba mooy Israël moom ngay wéy di feeñal ne nag rayal nañ ko benn ci ay soldats foofu ci secteur Gaza jamal nañ ko ñaar ñoo xam ne jam-jam ya metti na loolee nee na loolu ma ngi amaat ne tamit na ñeneen ñoo ne jam nañ leen foofee ci càmmuñu Palestine mooy diggante moo ko Hezbollah ñi nga xam ñoom ñooy waa sapeur pompier bu Israël démb ñoo daal di échec ci mën a saytu ak mën a not safara si nga xam ne tàkk ci xasaayir te nga xam ne waa li waa xesbalaa ñoom ñoo fa sànni li nga xam ne mooy ay jum mu nekk mbir yoo xam ne nag jaaxal na leen ba léegi boo demee ci beneen kuréel bu topp Onorawa ma ngay wax ne ñi nga xam ne mooy Israël béréb bi nga xam ne moom la ñuy tuddee al mantiqatul insania daanaka mun a loolu maanaam béréb bi nga xam ne fa lañ bëgg a yóbbu doomu aadama yi matul onze pour cent ci yaatuwaayu Gaza nga xam ne sax ñi nga xam ne ñoom lañ fa bëgg a yóbbu sax du fa daal di xaj waaye li nga xam ne moom mooy rapport yi njëkk ñi ngay waxtaan ci ñenn ñoo xam ne jam nañ leen ci biir biir mm, ci biir benn bâtiment bu ñu nekkoon ñu dóor leen misil kon loolu jàpp leen waa Hezbollah ñoo fa jaaraat ak Israël canal bu Hébreu ma ngay wan ne am na ñoo xam ne loru nañu ci ay bombardement yoo xam ne misil la yu jógee Hezbollah jublu ci benn usine bu nekkoon foofu ci waa Israël kon jàpp leen waa Hezbollah ñoom kafuñu ci fayu gi ne dañ koy fayu Ismaël Haniyeh waaye kafuñu ci rayante gi ñuy rayante ak Israël ñu tànk benn yoon benn démb nag nemmeeku nañu courant bu dagg amatul fenn ci gox bi ñuy tuddee Hatzor Galili bi nga xam ne songo yi am na fa foofee ci Liban ci diggante Hezbollah ak euh, Israël ñaar ñoo xam ne jam nañ leen ci explosion bu am rëll rëll ci benn avion boo xam ne drone la bu amul pilote waa Hezbollah ñoo fa jaar ci foofee yi koy yebal ci béréb bi nga ne moom la waa Israël daal di yi nga xam ne ci ay missile yu rot yi nga xam ne moom ba léegi kenn mënatu ko fa génnee lim yaa ngi gën a jotteeku ba léegi ñi nga xam ne mooy moomu xaawama bi maanaam ñi nga xam ne xeex pour waa Palestine ña ngay wéy di sànni ay missile di ko jëmale foofee ci Jalil maanaam waa Hezbollah ña ngay wéy di def loolu di ko sànni foofu ci jëlili ouest démb am na ay missile yu jóg daal di jublu dëkk bi ñuy wax saalata am am waaj ci sow dëkk bi ñuy wax Rafah ni ko noonu démb amaan na yeneen i këru wato yéeni kaay yoo xam ne doon moytuloo nit ñi ci béréb bi nga xam ne mooy càmmuñu Palestine foofee ci Safad kon diggante Hezbollah la ak Liban ak ki nga xam ne moom mooy waa Israël avion Israël wéy di sànni ay jum di ko jëmale ci béréb bi ñu mantiqatu Jaafari ci ndeyjooru penku balax feneen fi mooy ba léegi ma ngay ña ngay ña ngay canal 12 bu hébreu ma ngay wesaare ay yenn mbir yu bees ci négociation bi nga xam ne am dox na ci diggante Israël ak Palestine foofee ci Doha États-Unis d'Amérique ma ngay imposer ay sart ci Israël di ko teg pour ñu mën a gëstu dëgg dëgg dëgg dëgg mbirum waa Gaza yi nga xam ne dañoo dëgër dañuy dañuy dellu foofee ci ñu pa Gaza muy maanaam ñuy dellu sax di jaare ci côté Nata Charem mu ne ndax loolu waxtaan nañ ko ba mu daal di leer ko gis nga de ma ngay ña ngay du ña ngay dugal fee tànk di génne fii bopp ministre de affaires étrangères bu Égypte ma ngay def benn doxantu ngir mën a def ay négociation ci lu mën a taxawal safara si boo xam ne dañ ko fas foofee nee na ci Kaayra këru yéen kaay Israël bi ma ngay xibaar ay explosion avion yoo xam ne bañ koy amul ay amul ay pilote ci béréb bi nga xam ne moom la Margilot foofee ci Galilée Axla kon ba léegi ci colonie bi nga xam ne fa la Israël teg tànkam fa lañ ko daal di bombardé ay njàngale wala ay renseignement yoo xam ne ñu ngi koy jox ci nga xam ne mooy doomu israël yi nekk ci béréb yi nga xam ne dañoo tàbbi ci côté tund bi ñuy tuddee alxawla ci foofee ji jalil la ñu gën a jige place yi nga xam ne fa lañ mën a daw làqoo ndax jamono yi dafa daal di tàng ba léegi e, waa israel ñoom ña ngay sàkku ci ñi nga xam ñoom ci ci limu gox yooyu nga xam ne mu ngi biir Gaza ñu génn te xam ne béréb la yoo xamante ni dafay dafay buñ fa génnee fan leen bëgg a yóbbu tam dañ fa rek raj loo duñ fa daal di xaj ni ki noonu këru yéenekaay bi nekk Liban ma ngay wax ne démb am na song boo xam ne song nañ ko ci yénne béréb yu tàbbi ci diggante ñaari dëkk yi di Hadassa Teyri ak Hadassa ak Teyri ni ki dong la yoo xam ne ñu ngi ko jëmale ci béréb ak euh, yenn ci ay wàllam kon waa Israël ñoom ñoo fa jaar beneen song boo xam ne Israël songaat na ko ci càmm ñu sow dëkk bi ñu wax xan yanus mu daal di jur ay jée yu bare bari ni ki noonu gis nañu ñoo xam ne loru nañu gaañu nañu ginnaaw songu Israël ci njaboot bi ñu tuddee Abu Mahla ci sow Nasra ci digg Gaza ni ki noonu tamit gisaat nañu yahut yi ba léegi songaat ci dëkk bi ñu wax Baldatu Marun Rasi ci ndey jooru Liban ni ki noonu limu ñi nga xam ne démb ñàkk nañu seen bakkan ci ñaaw ñaawtif goo xam ne Israël def na ko àgg nañu fukki nit ak juróom waaye niki noon tamit njaboot ñoo xam ne tamit ñàkk nañ seen bakken muy njabootu lëmm te juróom-ñeenti xale ak seen waajur ak juróomi jigéen daal di fay jaare ñàkk seen bakken niki noonu avion Israël woy di song benn njaboot gu tudd Abu Mahla ci sawu Naasa ci digg Gaza niki noonu tamit démb saat gisaat yeneen song yoo xam ne Israël def na ko ci ay place ci ay penku ci càmmoñu Gaza niki noonu ba léegi jëlaawaat nañ fa yeneen xibaar yoo xam ne da ngay wane waa Israël ñu ngi doon jéem a dëkk ñu ngi doon jéem bëtt dëkk bi ñu Qaraba ci Bani Zayd ci càmmuñu Ramala eh, li nga xam ne moom mooy ambulance bi ñoom nee nañu démb mën nañu def nañu seeni def nañu ay effort ba jot a génnee eh, ku gaañu ak ñett ñoo xamante ni lor nañ leen ci benn kër goo xamante ni mu nga ca quartier Cheikh Ridwan eh, ca dëkk bi ñu Gaza am na yenn euh, delluwaay médical maanaam yenn source médicale maanaam yenn médecin yi ne démb nemmeeku dañ ñaar fukki ak benn ñàkk seen bakkan ci song bi Israël song ci digg ak nday jooru dëkk bi ñu Gaza ca fajar ga ni ko noonu am na yeneen song yu sioniste yi def yu yahudi yi def ci Tal Hawa ci ndey jooru sow bi ñu wax dëkk Gaza beneen song bu amaat ci quartier bi ñu Zaytoun ci ndey jooru penku dëkk bi ñuy wax Gaza États-Unis d'Amérique ne daa andi yoo ay sart ci kaw Israël ngir mu def ay gëstu ci waa Gaza yi nga xam ne ñu ngay jógee di delluwaat ci càmmoñ bi mbokk yi yàpp naa ne lii mooy li gën démb ci ay xibaar yoo xamante ni eh, ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jàmmal àdduna bi waaye rawatina mu jàmmal ñi nga xam ne moom mooy waa Palestine waaye mu jàmmal mboolem ñi nga xamante ni ngeen ba baal ma ngeen baal ma ngeen baal xibaar bi bi muy ñëw fekk maa ngi waaj a tëj mu daal di rot léegi léegi léegi kon ñu daal di koy yeggali te mooy waa Saraya Quds def seen communiqué ñoom xeex bi nan la demee démb maanaam ci rayante boobu nga xam ne Israël mu ngi naan def na fii toj na fii toj na fii ñoom it ñu wax waa seen contestant bi nekk tul karam nee nañ démb ci 11h35 ñoom dañ lay jox heure 11h35 loolu kañ la ca àjjuma ba ca ngoonu àjjuma ba song dañu ay matériel yoo xam ne Israël ñoo leen moom ñu daal di koy dóor yàqate ko nee na ñu wëy di xeex ba tey ci di 17 août deux mille vingt quatre nee ba léegi ñu ngi lay joxaat beneen communiqué songu lañ dëkk ñe baldatu Maroun Rassi ci nday jooru Liban daal di fay dóor ñoom seeni missile ba léegi tamit songaat nañu dëkk bi ña Kounine Kounine euh, ba léegi foofu ci ndeyjoor Liban ba léegi tamit kataay bu Shuhadaawul Aqsa ñoom itam nee nañ xuus nañu ci jàmmaloo gu métti ñoom ak yexuti kon jàppale ne kon yëfi moom saa su ne ni ñu koy waxee rek moom mooy tàng jër rek ci la daal di nekk tàngin woo xam ne nag kenn xamatul nag fu muy yem ndax fi mu toll nii xëj na bu njëkk dañ doon wax naan Israël Palestine waaye léegi dañuy wax Israël Liban dañuy wax Israël ak mboolem yeneen gox yi nga xamante ni dëgg-dëgg ña nga nga ca yëf yi di di di dóorante mbokkee xarit yi leen di am jàmm saa su nekk di ko am ci mbooloo mi di ko am ci fépp ak fépp yàlla ñu defal jàmm defal ñu sutura defal ñu ko ci biir ak defal ñu ko ci biti yàlla jàmmal ñu dooleel jullit ñi kàttanal leen xanaa jullit ñi démb bu am na xew-xew bu am boo xam ne bi ko Cheikh Alfahim dugalee daal di ma ci wax man benn kàddu ndax dëgg-dëgg xol bu tiis ak xool bu naqari ma ci masawu alaaji alaaji Njaay la démb sonn na ci lool ma ko ci masawu ginnaaw bi ma dëgloo ñëpp waa mën na am yeneen mën na am. parce que jullit ñi ñoo am jafe-jafe ci seen biir ndax nag jullit ñi dañoo wàccoo ak leen yàlla digaloon moom jëfewuñu ko jullit ñi seen premier problème moom mooy dañoo bàyyi ñi war a jàmmarloog Babacar Ndaw wax na ko wàññeeku ci ñi warte jàmmarlool <laughs> di xeex ak ñoom jullit ñi àgg nañ ci tey jullit buy def lu baax sax ñu ngi seet nuñ ko pakastale ñu ngi seet ay sikkam ak nuñ ko demee maanaam jullit ñi ñoo am feebar maanaam sax lii di dal lii du dara lii di dañ gis yeneen ak yeneen parce que jullit ñi ñoo am problème te te problème boobu dañagul ci ñoom fi leen yàlla defarloo wax ko moom moo yàqu ci ñoom inna fi jasadi ibni aadam mudra isa salaxa salaxul jasadi kulla wa isa fasal fasal jasadi ko alaa wal qalbu xol bu xasee ba yàqu ci nit muy yàqu mënatul xam lu baax yéeneetul nit lu baax ta def lu baax lu bon la mën a gis si nit te loolu fees dell ci jullit ñi lu tax yéefar yi duñ ñu lor moo tax idéologie yi nii ñii ñii ay ay ñëpp xam nañ ne ay kamit lañu gëmuñu benn diine gëmuñu du christianisme du islam du dara dañoo jàpp ne Mohamed benn sanguinaire la benn bande armée ñoo àndoon ak moom di toj àdduna bi loolu lañu gëm loolu lañu bind léegi nag dem bi ñu dem di ko wax loolu bettul kenn am na yeneen ak yeneen ak yeneen ñëw parce que jullit ñi ñoo am problème te fajooguñu ñu feebar xol yi ñoo feebar xomaag ñu kukk tilim kenn yéenantuwul ak jàmm wala nekk ci jàkk ji balaa nga sa noon pire mooy ñëwkatu jàkk ji sa noon pire mooy ñëwkatu jumaa ji sa noon pire mooy waxkatu lu baax léegi yéefar moom taxaw fee di la seetaan foo dégg jul ñaa ngi reyante rek ña nga ca jàkk ji ña nga ca daayira ña nga ci mouvement ngeen bëgg a am jàmm loolu loolu du dëgg loolu ku koy wax da ngay waxantu jàmm du am danañu rey danañu faat danañu teg ay fitna parce que suñu xol yi baaxul dañoo tilim te faw ñu dem defaro ji ngir jëmmi borom bi lii moom mooy wax ji lii nag bu see ton bi sax dama ko wàññi parce que démb bu ma waxoon musiba laay wax moo tax nii ma jàpp ne tey war naa mën a wax jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.